Salut les amis de eSport TV, merci encore de la confiance renouvelée, merci de vous des likes, merci de vous des abonnés, merci de baisser les commentaires. Un plaisir renouvelé à de partager des informations. Mbokki Sénégalais yi fépp nekk rek 14 du Sénégal àdduna woon këpp ñi leen di jaajëfal ñi nekk également ci lal hôpital yi ci kër yi tëdd feebar yàlla na suñu fëgg seen bopp ngeen war ak jàmm ñi nekk ci kaso yi suñu xiiraat leen ci boppam teg leen TV actualité bi nag gars yi dañuy waxtaanee d'abord li nga xam nag mooy donc compétition africaine ak xamee ni gars donc ca Maroc lay amee ah donc ca Maroc lay amee entre Wydad xam ne mooy Al Ahly nekk finale boo xam ne nag jur na coow ndax ñi ah, ñoom seen dëkk lañ koy organiser ci Maroc te waa Al Ahly donc waa Égypte dañoo bañoon ne loolu du benn yoon yóbbu woon li nga xam ne nag moom mooy donc euh, seen réclamation ca TAS tribunal arbitral du sport ñoom nag mujjee nañ jox dëgg waa CAF ne fa lañ koy amalee ndax ñi xam ne ñoo déposé woon

liste par rapport aussi double confrontation le combat aussi très attendu defoon na fi nga xam ne nag ça nous rappelle un peu l'équipe donc euh, de la Zambie bi jëloon Coupe d'Afrique bi entre autres mais aussi les Bafana Bafana donc euh, ñi ngi de l'Afrique du Sud ñoom it seen liste génn na nga xam ne seen premier match sax ñoom ñoom ak waa Maroc ñoo war a daje donc nga xam ne ils sont ce sont les Brésiliens d'Afrique ñoom leen nga xam ne ñooy waa Manchester nga xam ne nag mooy këyit nga xam ne mooy ne Riyad Mahrez pour des raisons donc de santé mënut a joué dafa am blessure moo tax mënut

donc ki nga xam mooy donc euh, donc euh, Dimitri Payet donc euh, aussi du niveau du côté du Chelsea gars yi ñu ngi naan les médias anglais woon ne actuellement Chelsea doit se séparer de quatorze joueurs au total quatorze joueurs muy ñi mu ñu ak indésirable ak ñu war dem ak nekk fin de saison fin de contrat yëpp ñoom Chelsea daal quatorze la au total et du côté de Liverpool Liverpool nag ñoom dem nañ ah, ñi ngi ci yoonu fi mu ne nii dem Paris war nañ sax egg bientôt ñoom nag gis nga kii di Fabinho gannaaw ba mu présent il est sur la liste de même que Thiago Alcantara bi ñëpp doon ragal naan ndax dina jouer du jouer ndax dernier match bi dafa génnoon donc Thiago Alcantara également il sera sur la euh, sur au niveau de la finale il est sur la liste donc moom mi li wóorul mooy ndax day départ sur la war a ci banc bi lay toog mais en tout cas moom il est bien présent ki nga également mooy Moussa Sissoko di manager ou ki nga xam ne yëpp jëlagul décision bu heure wax jotee dina wax mais pour l'instant mi ngi ci temps de réflexion bi di déglu ñëpp nag donc loolu la Moussa Sissoko wax le manager de Ousmane Dembélé Aliou Cissé gars yi comme vous l'avez dit je vous l'avais expliqué génn na liste am gis ngeen liste par rapport ak nga xam ne ñoom la convoqué ñan la convoqué wul ak aussi ku nekk ci sa xalaat mais c'est lui el tactico c'est lui le technicien moom mooy sélection nga compte Instagram am moom il donnera tout pour le peuple sénégalais je donnerai tout pour mon pays le Sénégal wane fierté ma ah, wane également li nga xam ne mooy bëgg-bëggam ñëw équipe nationale du Sénégal Iliman Ndiaye mi nga xam ne donc il avait la possibilité même bu fekkee musuñu ko woo équipe nationale de France peut-être obtenir moom day xaar équipe nationale de France wala def équipe espoir et mais moom Sénégal la Moussa Yago joué donc il est présent sur la liste Alpha Dionk mi nga xam ne nag également donc Coupe d'Afrique bi mu ñu double confrontation contre la Guinée-Bissau su ma juumul il a été donc appelé en renfort donc Alpha Dionk moom du nouveau ci liste bi xëy na dafa ko jot ñoom mais Demba Seck ak Thierry Iliman Ndiaye ñoom ñooy les nouveaux Iliman Ndiaye donc comme je dis qui par rapport à Sheffield cette saison notamment fin de saison bi il a fait une fin de saison exceptionnelle moom nga xam ne donc fin de saison bi il a marqué sept délivré deux passes décisives donc ngeen gis liste baa ah, avec le retour des gardiens bi par Alfred Gomis donc Seny Dieng ak ki nga Edouard Mendy ñu gis Dionkou nekk défense bi Abdoulaye Seck ba il est toujours présent Saliou Ciss mi nga xam remet de sa blessure sinon le reste xam ngeen leen donc qui revient pour renforcer cette attaque sénégalaise privée de Mambaba Thiam Ndiaye ci équipe nationale du Sénégal woy leen di like woy leen di abonné